mbokk yi fitna ji ma sëñ Cissé wax ci combat bii bu ma ko waxee baa du jooyloo supporteru Gris wala mu jooyloo supporteru Ama Baldé mbokk yi jëmm ji mooy le marabout de Modou mu ne ma ci galañ laa daane woon Boy Niang ci galañ laa daane woon Ama mais lamb ji Ama Baldé ak Gris galañ rek mooy tax ñuy daan. lambi sarax day am. waaw waaye lamb ji lambi tàmbal mosoor la. looy bu baat bi yàqoon nañ ma ko jéggal nag. waaye lambi pakaay mbay la ak keneen ki rakki mbay gee ji nu mu Baye Demba lambi baay Demba la pakaay mbay ndax lambi ji lambi bant la. géwél li ñooy daan ca bant ba la ñuy daane. bant la te boo ne ma lambi bant ma ne bant ba ñu war a tëggee cóol ma cóol ma. bant ba du doon bantab Dakar du doon bantab dimbu du doon bantab Kaasia du bant bantub keng du doon bantub alum. man bant booba ñaar ki ko fi mën a ñëw di ko fi jël si. man ma wax la déey ba nga wut bant ba. boo koy jël si man dama lay filmer. dañuy toog ma filme la nga filmer ma. boo demee boo daanut. ñu génne ko ci biti. waaw ñu vaar. ñu vaar. waaw ñu xam ne Serigne Cissé làmb te dama xami tegtal. dama xami tegtal. li ma lay wax nag dama la daan wax ne làmb ji làmbe sarax la wala ca tefes ga jeexee làmb ji ma lay wax lambe bant la te tàmbal mosoor bi mooy daan. déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet ay ngemb déedéet minti couleur ak yooyu waxuma ci tey lambi bant laay wax tey bant lambi bant bant tàmbal ma mooy daal lambu ja mooy daal lambu ja yaa ngi fàttaliku contre Balla Gaye Yékini Adama Ngom yaa ngi koy fàttaliku lambu jooja lambi bant la woon ca galañ bala joojoo del si waat galang uh-huh. waaye ban galang lañ ko war a tëggee hmm. wasalaamaaleykum galang lañ ko war nga dugg foofu ñu dugg ci euh, seet parce que bokk nga ci sëriñ si dàq seet te dama bëgg nga seetal ma diggante guy gi ak ak Ada Fass kuy daan la Sénégal lay bëgg xam. Liss Ndiago ak Zos ak bëgg nañoo xam kuy daan mais sëñ Cissé balaa boobu ñëwal ci seet ginnaaw ne nga yaa ko ci sëriñ si ñu waxtaanee seet. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin laa xawla wala quwata ila billahi aliyil rabbi sarax li sadri waysir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yu baax yi yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel MPROD ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara waaye di leen baalu àq ci bis bu màgg bi ñu génnee muy bis bu tabaski bi mbooleem koo xam ne soppe nga wala ngay ab jullit foo mën a nekk ci àdduna Serigne Cissé bu Serigne Babacar mu ngi lay baalo ak waaye di la baal àq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla na nu yàlla boole baal nu teewe ko ay diwéen yu bëree bari ci daraja yonentu bi barkeeb sëriñ Babacar si alaaj alaaj dégg mën naa xa wax ne mën na noo bokk école bu nuy jàngee waaye du nu bokk classe loolu yàlla ko dogal sëriñ Cissé mu Seydi Aboubacar si mii toog yàlla mi nga xam ne mooy yenkeewal ka ko neex di def la ko neex te nam ko neexee na la koy defee yàlla maa tay lay doxee yàlla maa tay lay doxee yàlla mooma nag moo dimbale Serigne Cissé bu Seydi Aboubacar si bii toog jàkkaarloog waa Improd da leen wax ne képp koo xam ne yaa ngi ci réew mii di Sénégal uh-huh. moo xam nga nekk ca diaspora ba xam nga nekk fii Sénégal wala Gambie wala Mauritanie wala Côte nga am loo bëgg a xam ci sa bopp yàlla moo dogal ne sëriñ Cissé mu sëñ Babacar ngay woo boo ko woowee lan ngay def mu ne sa loxo droite bii ngay daal di photo hmm. boo ko photo nga yónnee ma ko boo ma ko yónnee lépp loo xam ne bëgg nga koo xam ci sa bopp yàlla dana dogal nga xam ko bu ñu la liggéeyee dinaa la ko wax bu la rab jàppee dinaa la ko wax bu la ngelawu seytaane duggee dinaa la ko wax bu la cat toppee dinaa la ko wax bu dee da ngay takk jabar bëgg xam yéen ñaar seen i wërsëg ànd na wala àndut boo ma wooyee man taalibe sëriñ Babacar Si bi ma wax la ko xam nga lu tax sëriñ Mansour borom daara ji sama sëriñ baayu sëriñ Maam Malick Si sama sëriñ baayu sëriñ Habib Si sama sëriñ baayu sëriñ Cheikh Tidiane Si sama sëriñ borom daara jee ma ne si se ma ne la béykat mu ne ma danoon a toll jamono joo xam ne ku jaax la ci réew mi woo la yàlla nag moo yor ay ngëneelam di ko séddale nam ko neexee yàllaa ma sédd ci ngëneel yii ne ku am soxla ci réew mi da ma woo boo bëggee say soxla faju ak foo mën a nekk ci àdduna te bu ma la seetalee li ci gën a yéeme mooy danaa xam say sarax wax la ko boo ko defee yàlla dimbale la te seytaane du ci am benn wàll ñaareel ba bu fekkee ne yow mi nga xam ne danga toog di ma xoolaan dalaay dégg mu sëñ Babacar Si stade ba raw xaanu stade ba bant bañ fa war a bàkkee yàlla xamal na ma ko yàlla xamal na ma tëggkat ya war a tëgg ban bant lañ war a tëggee bant bii ma lay wax bu duggul foofa ku fa yóbbu beneen bant bu dut bii danañ la ruut ci bi te duñ xam lu la daan te lu ñàkk xorom lay daan. xam nga yi dañuy tëggee des fois galañu niima am na sax ñuy tëggee bantu ngeeraan am na ñuy tëggee bantu daqaar am ñuy tëggee sump ak yeneen a yeneen. ngeer du dem daqaar du dem bis ma du bisu ngeer ak daqaar darajey Moustapha maay wax ak yow. ban dama ñu war a tëggee. du ngeer du daqaar. du niima tamit. arena du ngeer du daqaar du niima du du alom. du mentalis déedéet. maay wax ak yow loolu du lamb ji lambi dimanche ji arena ba laaju loolu. darajey Moustapha maa tëdd guddi yàlla wan ma bant ma nga jàkkaarloog moom billaahi yàq satan ci nelaw yàlla wan ma bant bi nga xam ne bant ba ñaari are ñoom ñëpp. waaw tey bu ma ko waxoon ki nga xam ne mooy tëggal Gris Bordeaux. waaw wallaahi lazi laa ilaaha illaa huwa bu ko bàkkalee giri giri am ndam bu ko amaa buñ ko ko bàkkalee amaa am ndam maay wax ak yow. foofu sax danañ fa continuer. ci kanam mais balaa boobu suñu siisee. du bàyyi dem ba koy tëggal. kan. sañ-sañ ñoom ñooñu la. waaw kële na de. garang bi ma lay wax ku ko bàkkee sa mbër daan jël bu réew mi yëpp di ca lu kenn xamul jël bu rëy. dinaa ñëw ci yeneen combat yi siisee da nga jógee Saalum ma gis nga andi ay cangat yu garaaw yoo xamante ni mhm. cangatu cosaan la suñu siisee gis naa fa cangat goo xamante ni. nit ñi amaleen ñor alaaj dégg am. nit ñi dañoo bëgg a ubbeeku ndax réew mi koo gis mu ngi naan damaa bëgg dimbale sama baay damaa bëgg a dimbale sama yaay kon nag ña nga xam ne am la bëgg a ubbeeku sëriñ si indi na càngat yoo xam ne ku ko sangoo yàlla ubbi la ak koo mën a doon loo tëju tëju boo ko sangoo yàlla ubbi la yàllaay yëkkati nit war a fax naa maakaana aliyan da nga yëkkatiku léegi nasru min allahi wa fatun qaribun nga yëkkatiku léegi innama amro isa arada say an an yaqoola lahu kun fa yakun fa subhaana la si biyadi malakuutu kulli sayin wa ilay turjaun sëriñ si ne ubbeeku rek nga bëgg bu ma la sangee nga ubbeeku insha allah bu soobee yàlla sangati mag ña laa yor te ku ko sango ubbeeku wax ju du yàgg. mais si ñu waxtaanee lenn loo dama gis ci benn càngat boo xamante ni deru xaru tabaski. Mm-hmm. nga ne ma xar xarmee xarum tabaski la ca der ba laa jël dagg ca am lu ma koy booleel mu am xaatim bu muy. dama la wax ñaar bërki démb. si sunu émission bu mujj fii dama ne la. danaa defar ñaar fukki ndomba yoo xam ne xarum deru xaru tabaski rek laa ko mën a defar. ma wax le ne xar ma biir ba la cay ne. mbàq ga lañ cay ubbi. di ko génne. muy muy nefere yooya. dinaa ci liggéey sangat yoo xam ne ku ko sangoo ku la liggéey ti dee te liggéey bu mu fekk ci yow dindi ko ma ne la wextaan woowu di nekk ca kii ba ci ci xar ma danañ ci liggéey loo xam ne nii nit koo xam ne jëfandikoo nga ko nit mënatu laa yàq te ku la bëgg yàq dee ndomba yi nag fa tabaarakallaahu duñ ko liggéey ci lu xar mu tabaski tabaski nag nit ñi foog nañ ne lekkum xar la yëkkati bagage sànni tabaski léppam njëriñ la fa tabaarakallaahu yow mi bokku di ma seetaan fii ci improt sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ne yaa soxla ndomba gi woo ma mm. nga xam ne biiru xar bi la ànd ak wooma sëriñ si dama sëriñ Babacar wala yow ubbeeku rek nga bëgg danaa la jox sangar goo xam ne kerek boo ko sangoo yàlla ubbi la ba réew mi ñëpp teg ci seen bët te kenn du la ci mën a yàqal ndax tiirab yàlla bi si laa jaar ubbi la insha allah waa alaaj dégg lamb ji dimanche la de ah. lamb ji bant la mais balaa lamb ji sëñ si lamb ji lambi bant la sa garab gi balaa lamb ji lamb ji lambi bant la gars yi dañuy wax lambi sarax ma ne la maaraan wax lambi sarax la lamb ji bant la bant bala nga ñu ci jëlle bi ñu waxtaanee lamb ji bant la réew mi mën na monta maay lamb rek mais lii ku ko naan sëy nañ ci wax ba pare bu dee Modou Lo sëriñ si bu sëy di Aboubacar si waaw maay wax ak yow lamb ji bant la mais bala nga dugg foofu ñëwal ci garab gi ko dégg lamb ji bant la nga nga ne ko naan lii lamb ji bant la ku ko naan sa awra jog nga man ci jigéen dara kàttan bi dafa néew manula dara amatula doole yi sëy sëriñ si mu sëriñ Babacar ne jëlal mbégteem kër gi gàtt bëri njëriñ mm-hmm. loolu nag alaaji wullee ko ci dolli woon gàtt bëri njëriñ fa tabaarakallaahu boo ko jëlee rek mm-hmm. kër gi neex mooy mbégteem kër gi maa ngi réglé situation yi maa ngi woon Saalum lii nga ne siddit lay defar siddit lay defar bu sa awra néewee doole boo ko jëfandikoo sa awra am doole foo mën a toll ci réew mi da nga am kattanal sëy te da lay faj lu fekk ci yow dana ko dindi sëriñ Cissé mu sëñ Babacar kàttanal sëy la lii maa la ko wax ku ko bëgg rek danga may woo wax naa leen man nag dugguma ku ñuy essayé dama da may gëm woo ma gëmoo ma bul ma woo da nga ne butel bi dix mille rek lay jar dix mille francs nga naan ci sa kër ku fa meroon bég waaw sa kër ku fa doon dina ciibatu ci bool bi dootul la ciibatu. Mm. ndax xolam dana sedd fa tabaarakallaahu loo ko jox dana ko def ci dépense bi ndax day am mbégte waaye lamb ji bant la de. Ah, ca galañ bala barki njol mag lamb ji lambi dimanche ji lambi galang la tàmbul musóor i ñooy daan lamb ji lambi tàmbul musóor la xama tàmbul musóor xaw ma tëggkat daal mooy daan lamb ji yaa ngi fàttali ko Balla Gaye ak ak ak ak ak Yékini fàttali ko combat ba fàttali ko uh-huh. lamb joo ñanam doone woon lambi bant lamb ji lambi bant la maa koy wax man sëñ Cissé mu sëñ Babacar du lamb joo xam ne naan butéel la ki gàllaay yooyu yëpp lambi bàkk daan la bàkk njool kon ku njëkk a tëgg rek. ku ma ci woo bant bi maa koy wax te boo ko bu fekkee ne dama la wax bant ba daanu la te bu ma la koy jox dañ lay vidéo. lay wax bu ma lay wax bant bi nga war a tëggee suur làmb ja. dara jëy Moustapha dañ lay vidéo yow mi fii ñëw ma la koy wax. boo daanu ñu tas vidéo bi barke Ndiol Màkk. pare nga pour ñu pour ñu vaar la ci loolu. la si laa ilaha illa huwa man Serigne Cissé mu sëñ Babacar. yow mi ñëw lamb ji xew. arena rawaanu arena bant la. bant ba mu laaj nag boo xam ne boo ko tëggee rawaan boo bég. ànd ak yow fa laaw yàlla jox la ndam. xam naa ko te yàllaa ma ko wan ci lu lul nelaw. baax na te yow mii ñëw ma la koy wax Serigne Cissé da toog fii ñu filmer la filmer ma. bu lamb ji jeexee la ma la nga bëgg boo ko amul na vidéo bi tas réew mi jot ci Serigne Cissé bay. yow da nga xam li wax moo tax loo xam-xam la du ay waxu folklore yi non non non c'est de la vie ah. ndax mbër yi ñu tëgg ñoom ñëpp mën naa leen a tëgg kon lu may wax xam-xam lay doon ak baatin bu wér péng waaye lamb ji lambi galang la sàmbul musóori ñooy daan ni ngay foqatee lamb sëñ Cissé noonu nga mën a foqatee jigéen teg ko ci loxo góor waaye foqati góor teg ko ci loxo jigéen nopp ala dégg dafa dogal man sëriñ Cissé mu sëñ Babacar lii poqe la huitaine la mhm. damay fas damay dagg xaatim mhm. te ponk yi ñoo am ci xaatim musalas am na. mu rabaxa am na kuntiyo am na alfu bu yoon am na xam mu xamas am na yii yëpp di ay xeetu buntu xaatim yoo xam ne fa tabaarakallaahu nit man nga ci um nit man nga ci ubbi nit man nga ci boole nit ak nit bu loola yëpp jeexee lii nag dama ko jàng ci yeneen maam ya maami pël yeeg maami séeréer yi laa ko jàngee ci ak fas bu dee da nga am koy bëgg wax ba sonn mu amel la bañ laa ñëwal wala nit amel la bor war la koo jox joxul la ko sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ne woo ma ta jox ma turam fa tabaarakallaahu ma defal la ci loo xam ne adduna ñëpp ciy teg seen bët matu seede billaahi la si laa ilaha illa huwa xam-xam laa lay wax jëmmi xam-xam laa borom daara ji fëgg soo bopp bi alaay dégg daara jey Moustapha mën naa fas mën naa dagg xaatim xam xaatim gu damm gu damm xut xam lépp fa tabaarakallaahu te yàllaa ñu ko yenkeewal ku am koy bëgg taw nga topp ca ba tonn mënoo coo am lu la neex fexeel woo ma man sëñ Cissé mu sëñ Babacar bu ko defee fële la am di wa sukkur waaye lamb daal bant la mais sëñ dindi cat wax cat nañ ko lem ba bii di ñëw waaye daal ku caat jàpp na ma woo waaye daal xaju fi ndax lii laa mën a wax ak ñoom. mais Ada Fass suite day bëre. moo guy lamb ji bant la. lamb ji bant la bant. laa ilaaha bant la waxuma la ci leneen nanaa la lamb ji lambe sarax lay doon waaye lamb ji bant la. kon lamb ay ñebeeg ah, suukar ak daanu ko. galang galañ tar galang. tàmbul mosoor mooy daan làmb ji ma lay wax dimanche. kon géwél am na solo ci askan wi. géwél géwél buñ foog ne am mbalax la rek. bàkk. waaw. dana yëngal rawxaan dana yëngal siditu te rek. ci sénégalais yi rawatina sama bokki saalum saalum yi. yi nga xam ne ñoom laa bokk ak. ren bi ma julli yi ci conférence yi ma dem. fa tabaarakallaahu ñuy wane cofeel gi ñu am ci Serigne Cissé. kon maçon spécial sama bokki saalum saalum yi lu ma duggu ñu dugg ci. lu ma génn ñu génn ca kon maçon spécial sama baay yi nekk Saalum sama yaay yi nekk Saalum waaye sama rakk yi nekk Saalum maa ngi am mbégte ci ñoom loolu rawatina dëkk ba ma dëkk muy seen maa damel ca région de Kaffrine yàlla yàlla yokk seen jàmm waa diaspora bi mboolem ku fa nekk la nga fa bëgg nangu ko bëggee yàlla na yàlla defalee leen ko noonu ñu ngi leen di siyaara di leen am mbégte ci yéen di leen ñaanal ki tukki moom ama ko arrangé yàlla na yàlla defal leen ko ñu bëgg këyit yàlla nanu ko am ñu bëgg wér yàlla nanu ko am ñu bëgg jëkkër am ko waaqiru dëxwaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu ngeen jëf euh, sëñ Cissé mu sëñ Babacar si dégg ngeen waxtaan bu am solo bi mu waxtaan mu nekk waxtaan bu am njëriñ muy borom xam-xam di kilifa goo xamante ni li ko yàlla may ci wàllum baatin euh, bëri na. ak mbokk yi numéro yaa ngi doon affiché euh, képp ku ko ci woo rek di nga ko jot yéen ñu ngi doon topp dañu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah